comme ni ma ko waxee euh, taxawaay bu mucc ayib la taxaw en tant que partenaire social bu ngeen xoolee amoon nañu ay accords yu bëri ak gouvernement de la république du Sénégal ay accords yoo xam ne ci wàllu statut yi la waaye ay accords yoo xam ne ci wàllu payoor yi la donte sax nag amoon nañ ci ay accords waaye gis nañ ne boobu ba léegi mise en œuvre bi dafa xaw a tàggatémbe bu bu président de la république joxe ay instructions ministre de la fonction publique jógee ci gàllankoor bi nga xam ne taxawee na ko di gàllankoor topp ay techniciens yoo xam ne ñu ngi yàqal. te li ñuy yàq en yàq yàqaluñ ñu ko ñun entité personnelle mais administration bu bu Sénégal lañ koy yàqal. préavis bi ñu déposé woon le 19 octobre 2023 lañ ko déposé woon donc le 19 novembre bii di ñëw incha allah lay arrivé à expiration. ñi ngi am yaakaar nag ne bala ñuy àgg foofu matuwaay yi nga xam ne nguur gi war na ko jël dina ko jël pour ñu mën a saafara jàngoro yi te ñu jublu ci liggéey bu loolu amulee nag ñun syndicat lañu donte nag donte sax nag ñun li ñuy gënal mooy waxtaan ak diisoo ak xool ba xam ndax mën nañu am ay solution parce que euh, bu grève amee ñi ciy loru mooy doomu réew mi suñuy rakk ak suñuy jarbaat ñoo ciy gën a loru ak euh, conséquences yi nga xam ne da am ci wàllu euh, économie waaye nag su fi sasee incha allah fa taxaw nañu pour def li nga xam ne yoon may nañu ko exercer suñu droit de te incha allah yaakaar nañ ne duñ fa